<laughs> te dama kontaan mais Mia da nga sedd bëgguma lii xaama ñëw ci yow Marème naar ngi nii toog sama droite Mia daal di nii sama gauche ñeneen yaa ngi ñëw tey fii Pikine lañ leen fekk si ah xale yi tous tasar xale yi bës dëgg neexul ma bàyyi leen rek ngeen nuyoo ak waa Torino Media TV Mia nuyu naa la di la bàyyi nga nuyoo. waaw salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen leen bi ñuy gis ak Mia lii lan la Mia tamit. baat bi moo da ngaa sonn lu rey baat bi. xam dara kii rek. noos bi la xaalis bi ngay lekk xaalis bi naar man gis na man nag xool ba jamonoy baax. yi dañuy ruube bala mañ sey du ruube man sama zaari njaago yi génn xeeti du ruube mais naar buy ruube man maa ngi koy gis ma dem naar nuy naar. maa ngi lay fay. Mm-hmm. maa ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew. Mm-hmm. di nuyu Sénégal ñëpp. Mm-hmm. di nuyu waa Torino waa nuyu naa ñëpp kay bàyyuma kenn. madame lan la yéen da ngeen di lekk seen xaas daal di toog ni doo wax ne la waa Zouzta ah waaw tout lekkuñu dara dañuy rek ambi rek lekkuñu dara. Hmm. Hmm. waaw d'accord léegi dañuy jàll directement ci question yi ah, du bari sax ndax nag ambiance moo ñu fi indi dëgg neexul bëgguñu teg kenn benn stress ndax xale tout tasar lañu woote ambiance fël-fëlaale xale yi nee nañ sànq ah bu guusee weeral bu yàqoo sàndil face à bar bi nee naa tey fii léppay leer. Marème il paraît que yaa ngi lekk sa xaalis dégg naa iPhone 12 nga yor ti ci tout tasar bi nga ko jëlee. lan 12 baa ngi nii de bii day portale bi loo <laughs> neex kay. Mia yow yow xoolal ma lan Mia sax naa yow xew bi nga xew yëpp yow ci digg dëkk bi marem naa ba mu tus tasa. ne ko xew mi de si tur lañ ci am nii de barke Serigne Bamba lekkaguñ ci dara. kon ngeen xewee ah yore bës bi macha allah macha allah yàlla bu mu gaaw a jeex gisoo leen ci seen bopp. ah gisaguñ ci suñu bopp de dañoo bëgg ñu jàppale ñu ñuy teral ñu ñu teral ñu ñu baax ñu. man hmm. ko ñuy faj buumu gàcce ñi. ñu jàppale ñu wax sëriñ Bamba ay xale lañ dañuy door a door xamaguñu dara. ok kon métti na parce que yéen a di bëggal euh, seen fans yi ñi ngeen xam ak ñu leen xamul nit di leen seetaan ngeen dégg lu ne te teewul amoo leen ci dara en plus da ngeen di solo nduroole sañse et tout ça loolu nan ngeen mhm, na lool moo tax ma bëgg ñëpp jàppale ñu. mais dégg naa waa ah, Bambina waa Tous Tasar dégg naa ñu ngi waajal le 12. Waly Seck bi dégg naa du yomb am na loo leen koy waajal. waaw incha allah suñu papa Waly xale yaa ngi nii de ñoo ngi sa ginnaaw. message bi ñuy lancé la à travers à Torino Media fii ci face à Barbé Mia looy wax waal sekk pour le 12. mu jàppale ñu rek. barki alxuraanu karim ñoo ngi nii ay xale yu ndaw lañ yàgg koo bëgg rek. def tey ñu ñëw ba nii ñuy dégg fu ne. di ko ñaan rek mu jàppale ñu. لا دوزو واو incha allah waaw kon léegi yow est-ce que dem daal di ambiance ànd ak Djiby Gueye borom Pikine dëgg neexul ñu daal di ambiance comme tey da ngeen ñëw xaw a sedd xam naa ne mën a woo leen ay wax dañuy wax de waaw lu neex lu saf lu cuur lu pàcc app waale lañ bëgg mu jàppale ñu <laughs> waxaatal li nga ko lu neex lu saf lu cuur lu pàcc ah. papa waale ah. yow la ñuy wax barke Serigne Bamba war ngaa taxaw xale yi teg ci loxo te loo teg loxo mu def barke Serigne Bamba taalibe sëñ Bamba boobu loo def mu baax loo defut baaxut barke sëñ Bamba kii di soxu ay dara tamit ñu ngi sa ginaaw sa mbokk naar bi waaw ñu ngi ñu ngi ñaan daal ngeen jàppale ñu. waaw kon lu tas lu tus la xaw ma noo ko waxee na lu saf lu cuur waaw ba tey nañ dem nañ dem léegi léegi ànd ak Jibi Gueye ah, ak waa tus tasax ñu daal di tasaare rek jële lu ñu am jël nee naa la bu guusee weeral waaye bu yàqoo sànni man Barbichou maa ngi ci tus tasax mën naa bokk. t laa def am naa kap ak yooyu noonu. kon nañ dem tus wax du am.